internet yi safoo di seetaan site bi di wasaare société ginnaaw ba ñu leen nuyoo ngeen taaxe lu ñu jukki leen lu bees li nga xam ne daal dinay am ci mbirum Serigne Fallou Ndiaye di xale bi nga xamante ne cinq rek la am ñu daal di koy faat daal di koy jàmpaaka ba pare daal di rendi mbir moomu nag mu ngi xew démb fali ca géejawaay teewul nag tey bi ñu yeewoo dégg nañ xibaar que ne police daal dinay arrêté kenn kenn kooku nag du kenn ku dul bermeeru Fallou maanaam jabaru papaam yoon daal dina koy teg loxo ngir mën a ñeel li nga xamante ni moo di enquête bi fàll moomu nag nekkutoon ak yaayam ak papaam waaye papaam la nekkaloon fii la ci ndakaaru ndax daf fi ñëwoon rek ngir passé fii euh, quelques jours ci vacances yi euh, yaayam ak papaam nag dañu divorcé léegi mu toll ci ñaari at mu nekkoon ci bàjjanam euh, mbir moomu nag ñu ngi ko jëlee ci suñu ay naataango Sénéco teewul nag police moom mu ngi wéy di def li nga xamante ni moo di liggéeyam waaye ñun tamit dinañu wéy di topp li nga xamante ni moo di information yi lu ci jotaru sand rek dinañ leen ko ñuy topp ak taamu bi ngeen ñuy taamu